présente maître Ousseynou Ngom, avocat de Pape Malick Thiam. Voilà, donc euh, ñu ngi am euh, satisfaction yàlla def na àtte nañ ko si jàmm euh, li nga xam ne moom lañ doon xaar te moo doon suñu mbébét yàlla def na tamit am nañ ko naam sax wuñ ko maanaam ci liñ koy toppee ne defu ko parce que loolu tamit la ñu bëggoon waaye ba ñuy dem xamoon nañ ne dina jafe. moo tax bi ñu ñëwee tamit stratégie bu ñu bi ñu adopté mooy def de sorte que bu si bu si bu si bu ñu koy teg daan tamit mu teg daan boo xam ne dina oyof. te si loolu tribinal fekk si nañ ndax euh, def na lu ñuy wax dispense de peine dispense de peine nag boo ko déggee mooy ki nga xam ne jàpp nañ ne li ñu koy toppee moo ko def mais may nañ ko bañ ko teg daan mooy li ñuy wax dispense de peine. loolu dana joué nag si si casier judiciaire am dina joué également si si carrière professionnelle am nga xam dina dina ko mën te du si am benn benn problème benn jafe-jafe. ben un sentiment de satisfaction bien évidemment parce que l'objectif recherché c'était d'avoir une peine à la mesure de nos attentes une une décision de relax bien évidemment mais on le savait <laughs> ça allait être un peu difficile d'avoir une, une une décision de relax alors euh, on a plaidé l'apaisement Finalement, on s'en est bien tiré avec une peine assortie d'une dispense de peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la, la, dispense de peine est une mesure inscrite euh, dans le dispositif euh, euh, pénal ou répressif et qui donc fait bénéficier à un, à un, un délinquant justiciable d'une mesure qui, qui annihile euh, la peine d'emprisonnement. Ce qui veut dire donc que son, son, son CV, son plutôt casier judiciaire, ne va pas être entaché. Donc c'était l'objectif recherché, parce que même une peine d'emprisonnement avec sursis aurait pu avoir euh, un, un impact sur euh, sa carrière professionnelle. waaw verdict bi ñoo ngi koy rafetlu dafa doon verdict bi nga xamante ni verdict bu bu dal la buy wootee jàmm parce que soo xoolee sax mënoon nañu wax ni waruñu woon yegg si sax fii si tribunal bi bay plaider ak des comme ça parce que si coowal bu ndaw waru woon mën yegg si mën nañ ko régler mu jeex et donc tey tribunal bi loolu la xam. dalal xel yi daal di koy bàyyi mu ñibbi et puis toppewuñu ko dara. d'accord noo gisee euh, ne force de l'ordre souvent waaw relation yi yombul mais dañ ko war a def mu yomb mu ratax parce que force de l'ordre yi soxla nañ journaliste yi journaliste soxla nañ force de l'ordre parce que ñoom ñooy aar suñu kaaraange et donc suñu demee ba ñagas-ñagas war a am je je pense que loolu du yoon warul sax am et donc tey tribunal bi def na jàmm. dox na verdict boo xamante ne verdict jàmm la lu ñu gën mën def mooy sensibiliser les forces de l'ordre par rapport à la profession des journalistes pour que ñu mën xam ne journaliste bi c'est pas un délinquant day ñëw recueillir de l'information def liggéeyam dañ ko war a sax protéger comme on le fait dans d'autres pays et donc parce que presse dafa am solo ci wàllum démocratie bon nous positivement parce que c'est un verdict euh, d'apaisement un malentendu entre un journaliste qui fait son travail et un gendarme qui fait son travail. Et le tribunal l'a compris et l'a dispensé de peine. Et donc il est maintenant totalement libre. Et vous, euh, vous êtes content qu'il retrouve euh, la rédaction Mais bien sûr. En fait, euh, depuis qu'il était dans les liens de la détention euh, au niveau de la brigade de Thion jusqu'à son, jusqu son déferment au parquet, nous n'étions pas tranquilles en fait. Nous devons l'assister, le soutenir dans ces moments difficiles. Il a bénéficié d'une liberté provisoire la semaine passée. Aujourd'hui, il est totalement libre. Nous, nous sommes contents et santé Allah en fait. Voilà. Directeur, comment appréciez-vous euh, de manière mais sont, des relations qui sont, qui sont parfois très heurtées. Et donc c'est normal. Parce que euh, voilà, donc ce sont des incidents qui ne manquent pas. Mais ce qu'on qu doit faire sensibiliser les forces de l'ordre par rapport à la profession de journaliste. Parce qu'ils sont là pour, la, la, pour recueillir de l'information, tout simplement. Et l'information, c'est un bien public destiné au grand public, donc les forces de l'ordre doivent protéger et être amis des journalistes, mais pas des ennemis, parce que nous travaillons dans les, dans les mêmes circonstances.